wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa ummatihi wa sallim sadid lisaani nawir janaani safi amaani wa zid baraa'i asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe ñoo ngi leen di ndokkeel te di leen balu àq leen bal àq di ñaan suñ boroom mu boole ñu jéggal di leen ndokkeel itam ci bisu feet gii nga xam ni bokk na ci bis yi nga xam ni jullit ñi tànnaluñu ko seen bopp waaye suñ boroom subhaanahu wa taala moo leen ko tànnal muy ay bisu feet yoo xani ni yonent bu fi mas a ñëw rek te yàlla yónni ko tànnloo na ko bis ñun nag mu bokk ci bis yi nga xam ni wala mu bokk ci feet yi nga xam ni ci la jullit ñi doon liggéey ab liggéey bu leen yàlla santoon te mooy woor weeru koor ba yàlla dogal weer yu jeex bis boobee nag mooy bisub tey ji ñi ëpp ci jullit ñi ci àdduna bi bisub tey jii lañuy màggal weeru koor bi weeru kore bi bisu kore bi kon xanaa di ci ndokkeel imaam Serigne Babacar Ndiouga Sylla Eh, di ko ñaanal yàlla taxawaay bii muy taxaw ci barab bi ci Medina ànd ko sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Cheikhouna Lo ak magi quartier bi yépp ñu di ko def ci ndigal ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgg a teewe yàlla na yàlla yokk mbooloo mi te mu bañ a wàññeeku yalna yàlla def sutura ci suñu digënté te jàppandal ñu mbooleem lu baax lu ñuy sàkku yàlla defal ñu ci sutura xam ngeen ni bis bi nak bis bu mag la ci l'islam ndax yàlla dafa wax ni kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattaqun man yàlla ma faratal ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon ca waye nak lan ngeen ci wara jëlé moy ak fegu ak ragal yalla ak topi yalla lolé nak yalla nañ ko ci jëlé té lolo moy lepp lo doon def ci lu baax ci biir koor bi bu jallé nga def ci sa kem katan continuer ko mbolo geek saraxay yu bari yek nawaafil yeeg dox mbokk geeg te saw làmmiñ ci lu dul noonoog koo ameel àq nga fexe ba jokk ko ak ya ci aju yépp ci mbooleem xeetu manaafiya du rek ni ci koor gi rek lañ ko waroon def waaye nag du tee bu jàllee mu ngi mel ni ku doon entraîné ba jàpp match bi jeex na entraîné na ba pare waaye match baa ngi door a ñëw li taxoon nag muy entraîné mooy biir koor gi lay tàmmal ay cëram def lu baax ba bu koor gi jàllee mën a wéyal ci def loolu lu baax ndax ay yaamam maadudaat la ay lim yu gàtt la ci fukki weer ak ñaar ñu tànn ci benn weer te yàlla nee na binduñu lu dul ñu jaamu ko kon fukki weer yeeg benn yi ci des suñu ruu ak suñu jëm ak suñu cër dana miin def lu baax ci benn weer yu ba nga xam ni bu doon ab oto la di nga ni danañ mën am essence bu ñu mën a dawee ba déwén ci kàttanu suñ borom ci mën a def lu baax ci mën a teet lu dul noonu ci mën a lu baax ak la ca aju lépp xanaa rek fàttali la nga xamante ni si yent bi sallallahu wa bu masaana toog ci jataay bu mel nii dana ko fàttali te mooy zakatul fitri wolof di ko wax muurum koor xam ngeen ni nit yàlla daf ko bind léeg-léeg ci njuumte ci wax wala ci jëf walla ci xool wala ci pas-pas ci yaakaar ju xamante ni si demewul nanga ko fooge te yooyu yëpp mën a wàññi aw yiw biiru weeru koor bi dund googu ñu ciy dund dana am ay xata yuñ ciy def ay njuumte yoo xam ni bu koor gi jàllee dañ koy laabale suñu jëmm ci weer wii nga xamante ni si xay na waxoon nan lu waxuwul wala ñu xool lu xooluwul wala ñu dem fu demuwul ak ya ci aju yépp nag léegi nag muurum koor mi ñuy génne day laabal nit ki te Yonent bi sallallahu nee na nit ki bu wooree weeru koor ba weeru jeex du du du ñu yóbbu yoolub yiwam lu dul dafa génne muur muurum kooram naka lañ koy génnee ci misaal rek ko am cent vingt cinq bu dee ceeb ñaari kilo ak liibar ci benn bopp bu nekk baax na am na ay wuute waaye li gën a wér moom mooy lum néew néew néew na nga am ñaari kilo boo ko mënee ñaari kilo ak liibar léegi nag nga génne ko ca la ëpp ca askan wa nga nekk la ñuy dunde la ëpp ca lañuy ñuy dund te réew mi mel na ni ceeb moo ëpp lu fi nit ñi di dunde kon rek ñu fàttali ñu ko sunu bopp fàttali leen ko ni su koy génnee nag mooy du rek ki woor moom lañ ko war a génneel waaye xataa fajar tey jii sax xale bu ci judd boroom këram bi nga xam ne ak dundam moom moom moom la war moo koy génne dañ koy génneel soxna yi di ko génneel euh, surga yi nekk ci kër gi nga xam ne yaa leen yilif di ko génneel ndongo yi di ko génneel taj sa bopp tamit moo ci jiitu kon rek ñu fàttaliku ko te buñ ko deful ba julli ba imaam sëlmal ku toppoon ca ginnaaw imaam te génnewoo ko ginnaaw bi boo ko génnee ab sarax nga am waaye amatoo zakatul fitri bu loolu jàllee itam am na ay sunnan yu bari yu ñu ci yenn bi sallam daa digle mooy wattu ci lell ci say we ak def ci ay tasbihaat subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا موي أي خيط سبال سن بروم يمك بيوخاني بس بي دا بوك تي بات يوي بوك دي وخ دنج لي فولل او يو وخاني يالا رك رك مو خم ماغاي با بوكنا تي غنيلي بس بي تام موي بيغل تي سان نجابوت تي لو داغان boo ko mënee nga wutal leen yére yu bees boo ko mënee nga euh, wutal leen togg gu baax ak ay naanu bi ci des itam donte da ngay wut as weccit sax nga neexale leen ko ba ñu xam ne ñoom tey jii ci bisu feet lañ nekk bokk na ci sunna yi itam euh, ku ci sol ci am col gu bees nga sol ko ku ci jaar ci mbedd mii di ñëw bokk na ci sunna yi booy dëpp boo mënee jaar ci weneen yoon nga jaar ca ngir bisub tay ji suñ borom fay yoni malaika yermande yi di len wax ni xol len sama jam, ñi nga xani dama len a tek teg teg ñu tegoo lu 10 ta metti ñu ko ci sama ndigal ba bis bi jeex ta ken onkul te wetiliko nañ ma ci ragal ma ba biñi wor lekunu biñi wor woru waru yuñu biñi wor woor ba koor ga jeex bisub tay ji nak ma len ko tanal muy seen bisub fet xol len ni ñu génne ak seen melokaan yi bu defee malayka yi dañuy puukare woo ci melaw julit yooyee di leen topp bu ko defee ñuy taamu mbedd moo jaaroon ci taarub lislaam bokk na ci sunna yi boo mënee jaar ci meneen mbedd nga jaar ko ndax moo ëpp aw yiw bokk na ci lu ñuy wattandiku tamit ci bis bi mooy def ci lu araam waaw ndax bépp bis boo xamante ni si jëfal ci yàlla màgg na ci aw yiw noonee la tamit lañuy teree euh, jëfe ci lu ñuy tere kon xale yi ak njaboot gi bu ñu leen di bégal itam bu mu doon rek tegal leen ay xeetu musique ak ya ca aju yëpp waaye defal leen la nga xamante ni si dagan na nga bégal leen ca waaye lislaam du nangu nga di leen bégal ci loo xam ne yàlla daf koy tere bu ko jàll bu ko bu ko defee yooyu bu ñu ko sàmmoontee te jëf ko imaam bi bu xësee ñëw barab bi kenn du fi julli ñaari rakka lu jiitu imaam di ñëw kenn du julli ginnaaw bu imaam bi sëlmalee waaye nag am na ci fuqaha yu ñu wax ni loolee mi ngi dagan ci kaw nañ ko daan defee bu njëkk mooy wut lu mel ni ab bayaal nga xamante ni si loolu ci sunna yi la bokk jullee ko fa bu boobaa moom taamu wunu ku julli lu jiitu imaam di ñëw taamu wu ñu itam ku julli lu ji lu noppi lu bu noppi bu imaam noppee bu loolu weesoo ñu ni nag bu fekkee jamono dafa def dafa dox ba ñu di ko defee ci biir jumaa yee ki jàkka yi bu boobaa naafila fa dara nekku ci ndax tax taxiyatul masjid lay tudd jàkka ji moom waxtu woo fa duggee wala jumaa ji te waxtu wa saga euh, euh, ñu ni waxtu wa euh, dagana naafila boo fu jullee ñaar rakka ñu ni dagan dara nekku ci waaye nag bu fekkee fu mel nii la ci biir jumaa ji la alhamdulilah julli fi ñaari rakka day dolli aw yiw waaye dara nekku ca bañ koy def itam du du jur yeddeel bokk na ci sunna yi itam imaam bi ñëw xutba julli ñaari rakka sëlmal xutba ñu topp ko bu noppee ci sunna yi mooy mu waaraate delloo njaboot gi ci lim leen war a delloo ci e, buntam bi muy ubbi ci ci roye ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa rek bu fekkee fàttewuñu dara ci sunna yi loolu mooy li ci gën a fés ci li nga xamante ni taamu nañ bis bii ku ko def taamu nañ itam ku ci def ay sadaqa taamu nañ itam jox ci way néew doole yi taamu nañ ci itam dox ci mbokk taamu nañ ci itam def ci mbooleem ibaadaat yi ndax bisub tey jii bisub fayet la bokk na ci ngëneeli bis bi itam su mbooloo mi ñëwee ba imaam ñëw ñu def ay sàppe gi jub ñu jublu penku amul liqaam ñu kàbbar nee nañu diggante sàppe su nekk ak moroomam nga xam ne tey jii ci misaal bu fekkee sàppe si jiitu sàppe si ci dox ci diggante bi nga xam ne nit mën na faa jaar nee nañ diggante boobu suñ borom dafay yebal ay malaayikatul yu yërmande ñu dox ci biir diggante bi ñoom it taxaw taxaw sàppe doonte gisoo leen sàppe soosee nag ñoom dañ koy yóbbu ba ca juróom-ñaareelu asamaan nga xam ne dañuy ànd ci biir julli gi te doonte gisoo leen bu ko defee loolu lépp nekk taarub lislaam euh, ab jullit buy jaamu yàlla suñ borom boole kook malaaka ikam yërmande moo xam ni da koy féyte ci kanam féyte ko ci ginnaawam yëkkati jëmmam ba mu àgg ci juróom-ñaareelu asamaan di ànd ak moom di def jaamu goge loolee day dal na xal dal na xel lool ci ab jullit kon xanaa di ñaan yàlla yàlla bu mu nekk suñu mujjanteelu julli yàlla nañ ko julli at yu bare bare gudu bari ndax moom mat nay ñaan ndax yonent saa sallam nee na ki gën ci yéen mooy ki aw fanam gudd te jëfam rafet xayrukum man taala umruhu wa xasuna amalahu mu ni bokk na ci ju nit ñi ki yées ci nit ñi itam mooy ki aw fanam gudd lool te jëfam ñaaw wa charrukum man taala umruhu wa saat amalahu kon yàlla nañu yàlla boole defal ci jullit ñi nga xam ni dañu fi yàgg di def lu baax te yàlla gërëm ko te ñuy def mbooleem loo xamante ni si dana jur ngërëmal yàlla xanaa rek sëñ Babacar xam naa bu ñëwee dana ci gën a yaatal Euh, yonent bi salaam dafa wax ni ab jullit ni mu mel digganteem ak ab jullit mbokkum jullitam mi ngi mel ni ab tabax muul yi dox ci seen diggante ni mu taqaloo nee na diggante misaal moomee la mel maanaam jullit bu nekk ni muul bi taqalee moroomam ba tabax bi mën a sotti wala bu dee jumaa ji mën a sotti wala bu dee immeuble bi mën a sotti noonu lañ bëgg jullit ñépp mel ni te kuy topp histoire waxtu wi kuy topp information xam ngeen ni Palestine muy baytul muqaddis te yàlla tudd ko ci alxuraan lim bu baree baree baree bare am ci yenent yi lu ma fukk ak nangam lu yàlla tudd ci alxuraan ñoo xamante ni sii jaar nañ fa te lu jiitu yàlla di farataal ci jullit ñi ñuy julli di jublu màkka ñoo ngi daan jublu di jublu baytul muqaddis baytul muqaddis googee nag ay jullit dafa nekk ñu koy wax waa Palestine tollu nañ ci fukki million ak ben waye yalla natu len boole leen ak yahud yo xani manam maanaam seen kàttan na ci rew yi am katan ci kaw suuf fi seen katan ag am ag nañ muy xeetu nucléaire ak ya ci aju yépp te ñoom itam juróom million la ñoom yahud yi boole ko di lor julit ña mbooleem xeeti lor kon dana ci bax julit yi buñ dajé ci bis bi di bisub ñaan ñu fàttaliku ñooñee nga xani biig ak barki biig rek ñeenti fan yi ci ginnaaw rey nañ ci jullit ñi téeméer bu manqué tuuti te ci ay tooñ rek lañ ko def waaye yàlla moom wala yaxsibanna allaha gaafilan amma yamalu zalimun innama yuakhiruhum li yawmin tasxas yàlla du du ki nga xamante ni si dafay ñëw rek di tooñ wala mu am kàttan wala muy loraate yàlla di ko seetaan ba nga jàpp ni yàlla da cee mënul dara dafa am bis bu muy xaar boo xani ci la koy saafara bi ci des mooy ab jullit ñaan mooy moo koy mooy ngànnaayam assilaahu adduaa silaahul mu'min te bis yi bis yu mën a nangu ñaan la te amul ci benn jullit boo xam la war a nekk ci moom ci ak njullit nekk na ca moom lu dul bu ab jullit mbokkum jullitam loraange dal ko lu dul daf ko war a yëg na na ko kële yëgee bu fekkee yéen ngi déglu matlabu shifa yi dégg ngeen ni ko suñ tuba di ñaane wajal jamil muminina fi lhuda wal muminat summa aafihim gada wajal jamil muslimina fi irtiqa wal muslimat bi ziyadihim tuqa wajal jami al ulamai aamilin wajal ane jami al aamilina muxlisin nga xam ne sëriñ bi daf ciy ñaan suñ borom tàppe xoolu jullit yépp boole leen ñuy jëfandoo ci mboolem ibaadaat yi boole ko seen xol yi ànd wëlbatiku di leen ñaanal suñ borom mu jéggal leen yamu ci sax moom suñ tuba ma ngay wëlbatiku di ñaan suñ borom mel ni avocat ci ñun ni ko suñ borom jéggalal sa mbokk sa jullit yi nga xam ne yaa leen sàkk doonte dañ lay moy fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdaanuhum la taqdiru ala balaika li dufin yazharu jullit ñi day même buñ la tooñee ci ci tey dañoo xamul rek ndax yow sa kàttan kenn du la xam dëgg-dëgg xam ba pare di la mooy bi ci des ñoom jullit ñi même buñ la tooñee sa kàttan ak sa balaa yi say seen yaram yu nooy ak yu lott yi nga leen binde sa balaa yi aju xajut seen kaw ala balaa yi kale dox fi yazharu kon jullit ñi war nañu baye xel ni mbokum julit mu new katan ña nga leen di lor ci mbollem xet lorange te ñi koy def ñi ngi ko tambali juróom benn fan ci ginaaw julit ñi tambali di def salatu tarawih ci baytul muqaddis nga xamni buñ ko doon misal ci barab bi mi ngi mel ñu tambale fi ba keur babakar ñepp ak li wër lepp nit ñi taxaw imam bi di jité di tari alquran nit ñi kàbbar di julli ay policier ak gendarme yor ay lacrymogène nga xamni julit ñi xeer sax yoru taxaw di julli comme ñun ni ñu def rek ci misal nañ ko nat ci suñu bop ñu jek jek rek ay nit ñew di ñu door di ñu sanni ay lacrimogène defe naa bu boba ku nekk da nga am loola nakari léegi nak ci lolé lañ tambali ba mujju tambali ay bakkan di ca faat te 1947 eh, ba legi ci tarikh mi ngi am ay nangami junni nit di faatu bi ci dess tam moy yalla ngi def sutura ndax waa Palestine ay xeer lañ daan yor musuñoo mën a rey benn yahud mujj na ñuy yor ay paaka ñuy rey ci ñoom lu bari mujj na ñuy yor ay jaasi léegi nag waa Hamas da nga xam ni ñoom ñooy kuréel ji ànd ak jullit ñi tàmbali nañoo xarañ ci wàllu missile ba Israël benn missile mënu faa dugg pour mën a lor benn nit lu mat fukki at ci ginnaaw waaye 2014 ak léegi. julit ñangi tambalé tàmbalee di jàng xam-xam yi koy def ba mëna tambalé tàmbalee fayyu ñoom itam ndax ya yoo nabiyu jahidul kufara wal munaafiqiina alayhim nit am nga sañ-sañu fayu bu la ab kat de togn ci lo xani yow defoko te ñoom walan tarra anka al yahud wal nasara hatta tattabia millatahum ñoom fii ak jàppoo ci liñu ñu jàpp jàppewuñ la ngay dara ndax ñoom nee nañu ñooy askan wi gën a néew ci askan yi yàlla bind te ñoo ci gën a sell te loolee ba fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee rek la wax joojee teggeeku ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee wenn xeet wu gën lislaam amul waaw bu mu mën a doon nag yàlla sax daf ñoo tagg ni yéen jullit ñi yéen yéen ay xeet wi gën ci xeet yi te nag ni na ngeen koy defee nag mooy di def lu baax tey teere lu bon ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar kon jullit ñooñee nag ñuy fitnaal ak di leen lor baax na ci ñun suñu mbokki jullit ñi donte soree nañ lool ñoom ña nga ca penk ñu ñoo ngi ci sowoo sow waaye ñu yëg li ñu waxoon rek ni jullit bi jullit ay mbokkam boo ko defee ndongo bu ndaw bii nga xamante ni sii ci fallaxi rek la yem ak ci naasi sax ñu xamal ko ni ko am na sa baay wala sa maam wala sa nijaay wala sa mbokk mu toll ni yow mu ñuy fitnaal ci lu dul dëgg léegi nag ki nga xamante ni si alxuwatu lillah moo yor kàttan te mooy yàlla léegi nag nañ ko ko ñaan te du bi saa sallam nee na ud'u llaha wa antum muqinuuna bil ijaaba na ngeen ñaan yàlla te ngeen am yaakaar ak yaqiin ci yàlla la ngeen di ñaan dana leen ko may kon bokk na ci tey ji ñaan gu fi waaye di ñaan na nga ca jiital wala boo ko jiitalul na nga ca toftal ñaanal ca sa mbokki palestine ya ndax mel na ni nga cay def sutura ci di leen kàttanal ndax ñeenti fan yi sànni nañ fa lu ëpp 1000 roquettes yoo xamante ni si dugg na biir israel yoo xamante ni si waa sànni nañ leen ko te mënuñu woon a sànni aw xeer ko fa waxuma laak ay misil te loolee imam Khomeini radiyallahu anhu bu Iran bokku na ci ñi taxaw julit ñi ñoñé ba jël fa ay nit jangal leen nu ñuy défé ay missile bañ mëna tambalé fay ta lolé tamit dañu wax ni dompat sax ci sot la bok kon bokku na ci ñun buñu ñom comme ñun ñong leen di ñaanal nañ leen gëna ñaanal yalla taxaw leen bañu am katanu mën leen yi mëna fayu bañ may leen jamm ndax bada al islaamu gariban fa sa yahuudu gariban fa tuuba lil guraba ginnaaw lislaam dafa tàmbalee ci ak tumuranke te yonent bi saa sallam nee na bu demee ba adduna di waaj tukki tamit dana dellu ci ak tumuranke te mooy dëgg ñu noot ko ba daanaka dootoo xam ni mooy dëgg wala boo ko xamee itam da nga cay wéet lool te suñu laat mu baax mi radiyallahu anhu daan wax ni nekk ci ak dëgg wéet ci ak wéetali ko ca nga war a yemale ngir la muy jur a gën waaw ngir la muy jur a gën kon ñun jullit ñi nañ xam ni am nañ kilifa gu mat kilifa mu yonent bi sallallahu alayhi wa te moom moo jàngale ñun nañ lañ war a jaamoo yàlla ci mboolee ma ibaadaat yi yonent boobu nag bi mu fi jógee dañul di am ay jëwrin ba ci suñu sëriñ bu baax bi di xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa moom moomee itam xam ngeen ni mbooleem xeetu fitna akub tooñeeg akub euh, loraange teg nañ ko ko te ña ko ko doon teg nii may wax ak yow euh, am na benn rapport bu ñu génnee ñeenti fan ci ginnaaw nee nañ maanaam France consulat yi mu am ci adduna bi dëkk bu mu am consulat ci adduna bi maanaam yàlla yëkkatil na fa Sëñ Tuubaa nangami kër yoo xamante ni fii ñoo ëpp consulat ba xam nga France sax bu fekkoon da nga naan Italie la rek wala nga ni Europe la rek mën nga ni kon mouride dañ faa ëppee waaye adduna bi yëpp nee nañ booleem fu France am ak kër goo xamante ni si ka fa teewal France am na fa ak kër Sëñ Tuubaa am na fa lu néew néew néew génn kër goo xam ne mooy ëpp consulat ba te taalibe yaa ko defal Sëñ Tuubaa loolee rek mooy alxaqu sabit wa ama albaatil wa in ala fa zahiqun wa safiq dawlatul batil saa wa dawlatul xaq ila saa manam deug rek moy muju lolé nak ñong ci ñaan suñ borom ci barké bis bi ak ci daraaje suñ tuwa suñ borom yëkëti julit ñoñé te borom xam-xam yi bi ma ngi ci top ben borom xam-xam bu ni suñu doop suñu suñu suñu dimbalé julit ñu tuuti manam Palestine dafa wër Israël ci misal man nga ko natt ci biir Sénégal ak Gambie manam ñenti pegg yépp yépp yépp maanaam Palestine dafa wër Israël kon bu jullit yi Palestine yi amee tuuti kàttan fitnaal yahud ya moom da leen di yomb lool kon na ku nekk jàpp ni tey jii war gaa ñaan doonte benn minute la teewlu ko sa boroom ñaanal ko sa mbokki jullit ña fa nekk suñ boroom may leen kàttan ndax jullit ñi moom wa maa ramayta iz ramayta walakinna allaha rama man ngaa yor fii aw xeer di ko sànni ab yahud mu rey yahud boo xam yow mën ngaa jàpp ni xeer wee ko rey fekk suñ boroom moo def secret ci biir xeer wi bi ko rey loolee nag dar gënu cee gaaw ñaan moo tax tey jii nañ leen ñaanal ñaanal leen xam naa bunt boobu li ci des sëñ Babacar bu ñëwee dina ko yaatal xam naa fi ñu tëjee rek mooy ñaareelu ñaan gi mooy na ñëpp fas yéene ñaanal sëriñ Touba sëriñ taxa suñ boroom dolli ko fee yàggal lool te wéral ko moom day sagub lislaam la waaw sagub la magum juróom-ñett fukki yi topp yoo xam ne moo ëpp ak farlu suñu classe gi am fanweeri at ba ñeen fukki ba ci ñaar fukki ci jaamu yàlla bokk na ci ku ko seetlu di nga xam ni jaamu bi yàlla xaqan la waaw mat na li mu doon dëgg dëgg dëgg dëgg mat na sëñ Tuubaa xoolal magum juróom-ñetti fukki at yoo xam ni bu 6 heures jotee bu farankulaayoo bu dindee farankulaay gi daanaka buñ ci tegee fukki minute ak juróom ñu ñu ñu ñu dog timis te loolee ku tàmmul jaamu yàlla mënu ko sama classe gi koo ci farankulaayoo fukki minute waxuma laak nag nga def ko weeru yàlla woo xam ne da nga koy tegale tey ni mu toogee sax du ko defaree du ko du defaru sax ni mu toogee boole ko jikko ju rafet ba àgg ci lool ba xawma ku ko gën ci réew mi ci mbooleem lu baax boo ko nattee ci moom gis ku ko dab dana jafe kilifa googu nekk ku yàlla dimbali nga topp ci ginnaawam la sëñ Abdou Lahad daan wax ne ku yàlla def nga topp ci ginnaaw Sëñ Tuubaa ku war a sant yàlla nga ndax ku xam fa mu jëm xam fam la jëme boo toppee ci ginnaawam sa yaakaar war naa dëgër sam xel war naa dal waaye moom mii de eh, ñu julli murit yépp jullit ñëpp sax laay wax waaye rawatina murit yi war nañ koo ñaanal dëgg dëgg dëgg ñaanal dundam gi yàlla nay kéemaan ci kaw suuf waaw yàlla nay kéemtaan ci kaw suuf waaw yàlla nay kéemtaan ci kaw suuf waaw yàlla na ko yàlla may fan woo xam ni eh, day gis sax suñu sët ñun te yàlla moom moom dara jafewu ko ndax lim yor rafetal na ko lool te it kuy suivre lii xew ci àdduna bi am na benn journal bu nekk France am na ci benn boroom xam-xam bu bind benn te benn taxi ci moom boo xam ne du ab jullit waaye feebar bi fi xewoon ci la ko bindoon ni corona de lu kéemaane la waaye am na Sénégal kilifa gu fa nekk goo xam ne yaakaar naa moo gën a kéemaane corona te sëñ Touba la fa nekkal am na lépp juróom-ñett fukki waaye mbooleem lu diine di santaane moo ca man ñëpp te li corona di gën a bañ la gën a def mooy jaxasoo ci biir mbooloo. daa di ni ndax jotul ñu xool kii def lii mooy kan waaye xool leen ni mu taxawee euh, jullit ñi ci biir réew mi waxuma la sax murit waaye ni mu taxawoo jullit ñi ci biir réew mi kilifa googee nag ku ko am dalay siggil bu fekkee siggib lislaam moo la ñor dalay siggil bu dee li nga nekkal Sëñ Tuubaa ñor na la te ñun dey ñun rawatina ñun ñu yaakaar Sëñ Tuubaa war nañoo gën a seetlu see euh, topp ci moom ndax bu boobaa lépp danañ yobbu ci lu baax bi ci des itam mooy ñu ñaanal ko suñ borom mu sàmm ko aar ko yàggal ko fi lool ba naal yii mu naalal ay waajuram naalal ko maamam téyel ko lislaam suñ borom sàmmal ko ko téyel ko ko ba dara bañ caa yàqu te incha allahu rabbi dara dara yàqu ndax ki mu koy liggéeyal garantil na ko suñ borom garantil na ko ko ndax nee na ti taalu wa laysa tan khafit wa man naxa min al wara fi hufit suñ borom yëkkati na ma sama daraja man khadimur rasul te dootu ko suufeel te képp koo si suufeel sama daraja wala lu jëm ci man moo la tax suñ borom dana la suufeel te dootu la yëkkati loolee nag yaakaar nañ ko ci képp koo xamante si ab jullit nga nga sàkkul ñaan sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa suñ boroom dolli ko fee yàggal te mu wér lool tànd ko wér te ñun itam suñ boroom may ñu ñu topp ci ginnaawam di déglu ay ndigalam te lum ni bëgguma ko ñu ñaan suñ boroom mu may ñu kàttanuk ñu bañ koo def xanaa fi ñu tëjee di ñaanal sëriñ Babacar imaam suñ boroom yàggal ko fi moom itam ndax taxaway bi rafet na lool ku xooloon 2003 2004 bi may jaxaso ak mom fi defena naa tumuranke na lool waye dundal nako ci gën ga rafetu ni dundin yéen san salam dafa wax ni yàlla neena inna ardi fi inna bayti fi ardi almasajidu wa inna zuwari la umaruha man yàlla sama kër ci kaw suuf moy jakkay kip kuma ma bëgg ziaré moy del dundal jakka ja mom nak yamul ci défar jakka ak juma ak taxawu ko waaye mi ngi ci kër-kër yi ci mbolém fexé ba xalé yi xam seen diiné ta di ca nek ñong koy ñaanal yalla sam ko ba taxaway bi mu fi taxawé ci mag ñi taxawé ko fi ci kilifté fu uh, mag ñi jité koñ bi suñ borom sam ko ba mu gën ko man ñu ko ak mom di ñaanal mag ñu bax ñi nga xamanteni ci ñoko dimbali ko ba man li suñ boroom sàmm ko sàmm mag ñi ba seen taxawaay gën a yàgg te yàlla defal leen tawféex kon rek xanaa di baalu àq ñëpp tey baalu àq ñëpp di wax kàddu gi xam naa xaw naa nu mu tuddati waaye ngeen baal ñu àq wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñun ñëpp nañ jug defar sàppe yi te rafetal yéene yi te taxawal kii bi te déglu imam incha allah rabbi bismillah nañ fexe sàppe yëpp jug